mbir yi tàngoon na loolu foofe ca cité kër góor gi leader yi féete ci coalition Yewwi Askan Wi dañoo ñëwoon ngir jàppale ki nga xam ne moo di Ousmane Sonko président Pastef les Patriotes nga xam ne niki dimanche lañ ko jàpp indi ko ci biir këram waaye Yewwi Askan Wi nag dañoo joxante woon rendez-vous ci 15 ngir mën a dem ci leader bu Pastef yi waaye mu jëwul antu ñi nga xam ne ñoo di takk yi dañoo tas si saa si ful bi nga xam ne commencé woon na dajaloo gannaaw loolu la ñuy teg loxo ki nga xam ne moo di coordonnateur bu Y'en a muy loo xam ne nag Déthié Fall bokk ci coalition Yewwi Askan Wi mu ngi koy ñaawlu bu baax. mais vraiment on ne peut pas accepter muy séquestrer aujourd'hui le président Ousmane et ñoo ngi dénoncer cela avec vraiment toute l'énergie qu'il faut et il a notre soutien notre solidarité. et le président Macky Sall doit savoir que le peuple est déterminé. ginnaaw loolu nag ci la am ay jàmmarloo ci diggante takk der yi ak ñi nga xam ne ñoo di militant yi. ñuy féete itam ci mouvement F24 ñoom it itam teewoon nañ ngir jàppale ki nga xam ni moo di Ousmane Sonko. Macky Sall na ñibbisi na bàyyi Ousmane Sonko na bàyyi yeneen opposants yi nga xam ne ñoom ñoo nekk dans les prisons. jàmmaarloo yi nag dafa wëy ci koñ yi nga xam ne ñoo féete ci cité kër góor gi journaliste yi sax daanaka muccuñu ci li nga xam ne moo di grenade lacrymogène yi kenn ci ñoom sax jot nañ ko laal ak benn projectile la.